Le président Macky Sall, qui ne briguera pas un troisième mandat, a obtenu le feu de la coalition Benno Bokk Yakaar pour choisir le meilleur profil pour la candidature à l'élection présidentielle de 2024. La conférence des leaders de la dite coalition s'est réunie ce lundi. La balle est donc désormais dans la camp du chef de l'État pour désigner celui qui portera les couleurs de la majorité lors de l'échéance fixée au 24 au 25 février 2024. Le profil sera d'ailleurs connu dans peu de jours, vendredi prochain, selon certaines indiscrétions. Le tribunal de Dakar a imputé la responsabilité de l'État du Sénégal dans l'affaire de l'élève Amadi Touré qui a été blessé à l'œil en avril 2018 lors de la manifestation au lycée Malik Sy de Thiès. Courant avril 2018, il aurait reçu une grenade lacrymogène en pleine figure lors des affrontements entre élèves et forces de l'ordre. Son œil a été complètement endommagé. L'avocat de l'élève avait assigné l'État en responsabilité. Après une longue procédure, le dossier a été évoqué le 20 juin dernier. L'État du Sénégal a donc été condamné à payer à l'élève la somme de 100 millions de francs CFA à titre de réparation pour toute cause de préjudice. Sur l'international, une embarcation pouvant transporter environ 200 migrants a été localisée au large des Canaries et correspondrait à celle partie du Sénégal il y a près de deux semaines, ont indiqué les sauveteurs espagnols. L'avion déployé par le service espagnol de secours en mer a localisé cette embarcation qui semble être celle que nous recherchons car depuis les airs, les sauveteurs ont vu qu'il pourrait y avoir environ 200 personnes à bord, a déclaré à l'AFP une porte-parole de Salvamento Maritimo. Nous terminons par le sport. Dans un communiqué partagé sur les réseaux sociaux, Noah Fadiga, fils de l'ancien international sénégalais Khalidou Fadiga euh, et latéral droit du stade brestois, a annoncé que la fédération a révoqué sa licence lui pouvant permettre d'évoluer dans l'Hexagone. En effet, en fin de session dernière, des irrégularités cardiaques ont été diagnostiqué sur le joueur et malgré les assurances de son médecin, la fédération ne lui permet pas d'évoluer en France dans de telles conditions. Plusieurs joueurs devraient quitter le Bayern Munich dont Sadio Mané et Bouna Sarr que le club a déjà fixé les prix pour laisser partir euh, le lion de la Teranga qui euh, dispose de nombreuses touches En Arabie Saoudite, le Bayern espère récupérer 20 millions d'euros, soit la moitié du montant déboursé pour le chipper à Liverpool. S'agissant de Bounassar, qui est à une année du terme de son contrat, avec seulement 28 matchs, c'est le Rotten depuis sa signature en 2020. Il est disponible pour une somme comprise entre 1 et 3 millions d'euros. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Oh.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 askanu Sénégal ak bitim réew seen groupe d'information bi di seen info international